asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ci seen plateforme Akan Mentor ñëwaat nañ tey ci seen ñaar fukkeelu vidéo ak juróom-ñeent ñu fas yéene tey euh, jàngal leen naka ngay defee ay trait ay flèche wala ay zone de dessin ci sa euh, document Word kon comme ni ñu ko doon defee ci cours yi passé yépp dañuy daal di ibbi benn document Word bu bees bu ko defee ñu daal di euh, ñëw kon wan leen naka ngay def pour insérer benn trait donc pour nga insérer trait da ngay ñëw fii ci onglet insertion donc boo ñëwee ci onglet insertion donc gis nga fii waxoon nañ leen ni saa yu ngeen xasee ba ñëw rek dingeen fi gis yu baree bare donc am na ay forme gis nga voilà donc boo ñëwee ci forme yi euh, bari na bari na donc yu bari yu fi ne gis nga par exemple lii nii euh, trait la gis nga donc boo demee insertion forme da ngay daal di ñëw trait nga cliquer donc après boo glissé nii rek da ngay daal di am kon li nga xamante ni moom mooy sa trait donc gis ne trait bi boo ko xasee ba am rek am na benn onglet bu ñëw fii bu ñëw wax onglet euh, format donc boo ñëw ba ci onglet format mën nga ñëw contour bi fii par exemple nga changer couleur trait bi su supposons ma cliquer trait bi nekk na rouge mën naa changer aussi li nga xamante ni moom mooy wàllu épaisseur bi donc euh, pour nga changer wàllu épaisseur bi maanaam naka la war a toll kon boo changé couleur bi tamit bu la neexee donc nga changé euh, li nga xamante ni moom mooy wàllum euh, gis nga effet yi boo ñëwee fii mën nga am effet yu bari yoo xamante ni mën nga leen appliquer donc gis nga euh, contré baa ngi noonu mën nga am possibilité par exemple changer donc yu bari ci ci texte kii trait bi nga xamante ni moom nga créé donc boo ñëwee gis nga format de la forme donc gis nga contourner style donc fii gis nga boo defee clic droit rek daanaka euh, di nga gis yu bare yoo xamante ni mën nga leen euh, changer donc gis nga foofu ngay xoolee donc euh, ba am li nga bëgg mën nga wàññi trait bi mën nga ko yokkaat voilà donc mi ngi noonu boo xasee ba ñëw kon onglet format bi nii rek di nga gis ni kon am nga ay possibilité yu yu bari pour trait bi moo nekk noonu donc effet yi par exemple euh, euh, yaay xool donc effet bi nga xamante ni bëgg nga ko bëgg nga ko ci euh, appliqué donc gis nga kon forme yaa ngi noonu mu nekk loo xamante ni donc yaay xool rek ni nga xamante ni noonu nga bëggee donc nga daal di koy changé parce que am na possibilité yu yu yu bare yoo xamante ni donc mi ngi si kon ci fàttali donc ba ngay ñëw onglet insertion nii donc boo ñëwee onglet insertion nga daal ñëw kon ci forme bi donc boo ñëwee forme gis nga fii am nay am na nay euh, trait donc boo tegee nii souris bi rek da ngay gis mu defal la donc euh, ay trait donc am nga possibilité donc indi euh, yu bare yoo xamante ni yëpp ba tey ci onglet bii kon lay daal di nekk donc boo ko xasee donc ba créer nag ba pare ci saasi rek dangay daal di gis mu daal di la euh, indil donc ay possibilités yu bari donc yoo xamante ni di nga mën a changer kon li nga xam ni loolu nga bëgg def ci euh, trait boobu donc ba tey euh, am am na am na yeneen possibilité par exemple soo ñëwoon fi format donc boo ñëw ñëwoon insertion par exemple nga xool forme donc boo ñëwee ci forme bi donc nga xool li ñuy li ñuy yëpp donc forme libre tu vois donc yii yëpp donc ay ay ay ay possibilité la donc boo ñëwee forme libre par exemple nii mën nga dessiner gisoo donc mën nga dessiner forme bi nga xamante ni moom nga bëgg voilà boo dessiner forme bi nga xam ne moom nga moom nga bëgg ba pare gisoo boo bàyyee rek danga gis ne defal na la kon li nga xam ne moom mooy forme bi donc boobu aussi mën nga ñëw nga daal ñëw fii kon nga changer voilà donc gis nga épaisseur bi ki couleur bi voilà donc soo paree ba tey onglet contour mën nga changé épaisseur bi fii xool nu mu xaw a gën a rëy voilà gis nga loo ba tey ci contour mën nga changé euh, bul def nga def ko sous forme pointillé wala yaay xool ni nga bëgg mu mel ko voilà donc donc boo tànnee ba am bi nga bëgg ba pare nga ñëwaat encore gis nga fii par exemple bu la neexee nga nga xool noo bëgg rek gisoo yëpp ay ay ay possibilité la voilà ay possibilité la voilà nga tànn ba gis daal bi nga xam ne moom moom moo la gënal soo ñëwee boobu nga daal di koy euh, valider donc ba tey euh, remplissage boo ñëwee ci onglet remplissage nii ba tey forme bi gis nga mën nga daal di xool li nga xam ne moom mooy couleur bi nga bëgg nga daal di koy remplir sans problème voilà donc boo bësee rek dafay daal di nekk donc saa beneen euh, problème bi ñuy faral di rencontrer par exemple xaaral ñu insérer benn forme insertion donc ñu ñëw insertion euh, voilà insertion nga ñëwaat encore forme par exemple xaaral ñu jël forme bi voilà am nañ fi benn forme d'accord léegi nag ñu bëggoon jël par exemple xaaral ñu jël trait bi daal ko indi nga gis ne fii ci ginnaaw forme bi la nekk waaye da nga bëggoon maanaam texte bi nekk ci kanam donc bu boobaa ni ngay def mooy da nga koy sélectionné donc boo ñëwee ci avancé mettre au premier plan gis nga texte bi ñu kii bi trait bi ñëw na ci euh, ci kanam aussi am nañ euh, des fois mm, loo noo donc nooy créer par exemple euh, bu fekkee xam nga lii dafay nekk ñaari image séparées donc ñaari image séparées bu la neexee nga boole lépp mu nekk benn donc bu boobaa ni ngay def mooy da ngay daal di euh, cliquer donc da ngay te cliquer cliquer bu teg donc nga gis ne sélectionné na ñaar yëpp donc fii ci onglet format gis nga am na groupe donc boo cliquer nga daal def groupé donc gis nga def na ko léegi benn image ñoom ñaar ñëpp la boole mu nekk benn soo ko bëggoon dindi aussi da daal di dem rek nga daal def dissocier mu daal di delluwaat nekk ñaari image yu bokkul voilà donc euh, leneen li ñu euh, mën a expliquer waat par exemple euh, ñu xool ba tey ci ci onglet ci onglet ci onglet voilà ba tey ci onglet insertion euh, insertion ba tey ñu dem forme donc boo ñëwee ci euh, forme ñu xool possibilité yi ñu mën a am donc dessin à main levée yaa ngi nii voilà donc bi mooy zone de texte très bien donc zone de euh, zone de zone de texte voilà donc on va voir encore yeneen possibilité voilà donc yëpp ay ay ay ay ay la donc mën nga xool yu pare fi ma def forme de base yaa ngi nii forme rectangle yaa ngi nii donc boo ci teg rek gis nga rectangle rectangle ak coin arrondi donc yaay xool ba gis euh, donc soit mën nga cliquer fii aussi nouvelle zone de dessin bu la neexee boo cliquer par exemple nouvelle zone de dessin nga daal eh, ñëw faa ñu dem à voilà dem page léegi ñëw voilà par exemple fii voilà nouvelle zone de dessin bi ñu inséré woon donc moo nekk nii donc ci nouvelle zone de dessin bi la neex nag nga daal di ñëw insertion forme daal di ñëw créer sa benn forme fii donc mën nga ñëwaat encore insertion forme ñëwaat fii créer ay dessins yu bari parce que zone de dessin nga choisir donc ba tey insertion forme mën nga am n donc ci biir donc soo paree boo ñëwee kon fii nga daal di cliquer ci angle habillage donc fii devant le texte bu ko defee loolu mooy permettre gis nga nga mën a déplacer ndoo pen rek yëpp daal di àndandoo kon euh, nekk ci moom donc loolu lañ leen indiloon tey ci seen euh, cours numéro 29 ba tey ci euh, Microsoft Office Word seen plateforme ak Mentor leen jox daje kon ci beneen vidéo